li ci gën a fës yu bari ci tali bi ci Sénégal transporteurs yi joxoñ ci woto yi def transport bu jaarul yoon di war gaynde yi mu fekk jamono jooju ministère bi ñu dénk wàll dem beeg dikk bi jëli matuwaay ngir dakkal li moto Jakarta yi def euh, taxi di jëli nit fii ci Ndakaaru ay ñaxtu ci dëkk yu bëri ci réew mi Mabo ca Kaffrine ba Mbuluk teen ak euh, Kuluk ca diwaanu Mbour askan wa di laaj euh, courant ndox mu sell ak tamit ay tali wàllum tàggat yaram quart de finale Coupe jaraaf di jeté ji ca Cameroun ak Coton Sport bu ina heure jotee lay doon fii ci Sénégal euh, fukk ak juróom-benneelu bëccëg bu Ligue 1 ñu koy amal tey jii bokk na ci nag match bu ñuy xaar AS Pikine mi jiitu di daje ak Stade Mbour euh, yaatal gi ci sport weekend lay doon mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nekk si lu ci ay faram-fàcce. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs ma li Ndiaye moo nekk ci machine bi xibaar dañ koy door lu soxal wàllu dem beeg dikk bi ak euh, woto yi nga xamante ni euh, ñooy wergande yi ñi euh, ne te transporteurs yi nee nañ ñoo indi accident yu bëri yi nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci réew mi ki ko xam ne nag di président regroupement transporteur yu Kaolack nee na wergande yi amuñu kayit amuñu dara te nu leen neex la ñuy doxee la ah, tax sax ñuy sàkku ci nguur gi mu daal ci jëli matuwaay Pape Babacar Ndour jiite regroupement transporteur yu Kaolack ci micro Ibrahima jàpp nañu war gaynde alkaati moom ko jàpp nañu war gaynde gendarme moom ko jàpp nañu war gaynde sapeur pompier moom nit jël na congé di dawalal boppam war gaynde yor carte professionnelle am loolu kenn du ko weddi parce que ku ko nar a weddi ñu laaj gouverneur waxuma loo xamante ne dama ko xamul damaa xam kon war gaynde yooyu transport illégal la boo xam ne état mu ngi koy mu ngi koy encouragé parce que état couvre-feu bi ba mu bëggee ñu toog toog nañu ba mu bëggee ñu tëdd 6 heures tëdd nañ 6 heures état bu bëggoon war gaynde dootul dox war gaynde dootul dox mais jàppale wuñ ci ñoom ñoo encouragé loolu ñuy wax ne nañ ñu jàppale parce que ci njaboot gi la ñu te ñu ngi fay suñuy pièces légalement chauffeur war gaynde bi nekkul chauffeur professionnel am na ci xëy na waaye li ci gën a bëri du ñuy chauffeur presque professionnel xëy na da ngay nokk nekk toog ci kër gi rek di kaas di accélérer sa yaay sa mag sa bàjjan sa nijaay bañ jox la benn deux millions mënul jënd cette place mënul jënd minicar nga dem jënd war gaynde ci ruq yi ngay toog fekk sax mënoo dawal bu baax accident bi am si ba sol mais nañ ko wax lan moo tax rajo yi waxuñu war gaynde la mais voiture particulière rek. war gaynde moom moo accidenté si boor si ba soor trois mois yi war gaynde la. mu nekkoon Pape Babacar Ndour jiite regroupement transporteur yu Kaolack des ba léegi ci wàllum dem beeg dikk bi ak li ñu nemee ko fii ci Ndakaaru di jakarta yoo xam ne dañuy nekk taxi di yebbi nit loolu nag eh, ministère bi ndénk wàll dem beeg dikk bi nee na jaaduwul ah, te nag daañu ci jël matuwaay ñi nga xam te nag ñooy borom dëru yi ñoom ah, di xam ne nag ñu dawal yërmande ndaxte dañuy dañu amul ci lu ñu jàpp moo waral ñuy def lu ni mel leeral yeeg ndey mux sembeen directeur des transports terrestres nee na chauffeur taxi yi ñoo am dëgg bu ñu sukkandikoo ci moom deux roues yi ak jakarta yi dañuy créer lu ñu duppee concurrence déloyale Cheikh Omar Gaye di teg leen ci kaw moto jakarta ñu lay fay loolu c'est formellement interdit te concurrence la bu jëm ci secteur transport loolu duñ koy dénoncer bu ci war dañ ko xeex di woo suñu collègues donc force de défense et sécurité yi. Euh, ñu gën euh, donc euh, bàyyi xel ci loolu. ñu interpellé ko si laaj bi Mamadou Ndiaye moom lu mu jàpp moo di li waral loole moo di ñàkkum xëy moom nag mooy président des réseaux sénégalais de usagers des deux waa waaw concurrence bi pour mu mën a loyal. mooy état bi autorisé pour que ñu def ko def transport des deux roues à Dakar. maintenant loolu pour ñu def ko nag il faut ñu régulariser il faut ñu régulariser ko. def benn arrêté. bu wane ni loolu day am parce que tamit embouteillage yi ak problème yi nga xamante ni am na ak dëkk bi nga xam ne dafa manqué liggéey euh, moom mooy causé problème yu mel noonu Cheikh Omar Gaye mu ngi yokk ni xarale yu yees yi mën nañ ko firndeel comme ab délit euh, arrêté bi mi ngi fi état bi réglementé na nañu appliqué loolu sanction yi ci war nañ ko teg d'autant plus que ñi ngi wax waxu accident ñi ngi wax waxu kaaraange yoon te gis nañu moto jakarta yi ak wala en tout cas deux yi euh, nu ñu vulnérable ci wàllum en tout insécurité donc loolu moom mënul xaj ci biir Ndakaaru te loolu duñ koy xeex ba vraiment euh, donc ba loolu daj ndax lii lee mën na saafaraal jafe-jafe yi ñeel transport bi fii si Ndakaaru rawatina embouteillage yi nga xamante ne du jeex loolee mooy laaj bi ñu samp waaye nu mu mënti demee ñoom dawalkatu moto yooyee artu ngir ñu xoolaat seen doxalin Ndeye Mour euh, Sembène euh, des ci ndakaaru wax euh, ci soble si gannaaw bi ñuy génnee ci korite gi ay toni ton soble jarul waral nag ba ñi nga ne ñooy grossistes ñu bëri ci ñoom dañoo jaaxle ndax xamuñu fu ñu koy denc waaye am na ñoo xam te ne jël nañ matuwaay ngir mën ko denc saa su client taxawee ñu mën ko jaay reportage Angelina Gomis. am may parc bi. xeetu saagu soble yi nag mooy daal di woo client yi Buri Cissé di ab grossiste moom nag ak njaaxare la àndal ndax moo ngi xalaat naka lay jéem a jaaye ñeenti téeméeru saaku soble yi mu am su saako yooyu desee da leen daal di muur ngir denc leen damaa jënd soble boo xam ne fi mu toll soble bu dëgër la bu desee fi mu toll nii mën naa ko fa bàyyi takk bu mu dëgër noo aw ma frigo aw ma dara moom kay nii laa koy bàyyi rek bu desee bu yàqoo itam bu ñëwee dama koy sotti rek trier mu dikk ma pertement pertement bu métti la may dikk soble yii du yàqu ndax soble bu baax baax la loolee di waxu Mara Dieye ab grossiste moom nag daal dina stocké ñeenti tonnu soble ci boutigam soble bi gaaw na yàq xam nga léegi Sénégal boo xoolee seen soble bi léegi am nañ qualité bu baax a yàgg muy a wow léegi Bari di jaaykat nekk ci biir marché bi utee lool ak ñaar ñi ñu jot a waxal moom dina fay fournisseur am su soble yi yàq ko ndax amul fu mu ko denc am na place fu may koy denc dangay bàyyi nii rek ma muur ko soo yàqee du damay fay mboroon du ñëwee day laaj xaalis te tamit doo ko waay gi yàqu la du nangu ngay wax ah c'est-à-dire bu ma la ko jamono ji nag soble daal dina tuuru ci marché bi lu ci mel ni soble Fouta soble ndey soble ndey soble waalo soble kohot ak yeneen ak yeneen looloo tax grossiste ak jaaykat di daal di sàqu ci nguur gi ñu daal di leen dimbali ngir ñu mën a am ay jumtuwaay yu ñuy dencee soble bi te du yàqu. huit heures tegal juróom ñaari minute wax ci leneen jëm ci ñaxtu boo xam te ne askanu Mabo nekk ca diwaanu Mbikilaan ca diwaanu Kaffrine kon région bu Kaffrine ñi ngi ko doon amal ay téeméeri téeméer doomu aadama wàccoon ci mbedd mi ngir sàkku courant ndaxte nee nañ ci téeméer ak fanweer ak benn dëkk dëkkaat yi fa nekk juróom rek ñoo am courant leneen li ñuy yittewoo mooy ay yoon foofale ca Mabo rawatina tali bi dox diggante Mabo ak Mbikilaan leeralee ko Mar Ndiaye ab daxu ñaxtu la ñu amal askan wi yeewu ci Sagré ak dëkk dëkkaan yi ko wër li ñu bëgg nag mooy ñu gudduro leen yoon wi jóge Mbirkilaan jaar Sagré jëm Kër Pathé ba commune bu Mabo Maodo Dramé moo wax ci seen kàddu ren gis nañ ne bi ñëw na am lu commencé ci di ko def waaye li nga xam ne commencé na ko liggéey dafa am loo xam ne dafa am manquement yi bëree bëree bëri ndax mënuñoo comprendre nga ne da ngay defar yoon te doo doo fàq benn déviation boo xam ne oto yi dinañ a bi nga xam ne mooy defar tali nekkul fi ñun ñu koy defaral pour fuuxalee ñu ko parce que yaa ngi ñëw ñun nag kenn nax dañoo bëgg gouvernement bi mu xam ne population bi nekk fii euh, arrondissement Birkelane yeewu nañ te muus nañ fekkee ne état rarant dong la ñu ko bëgg a defal lim fi fekkoon la fi bëgg delloo na ko bàyyi bëgguñu ñun lu ñu soxla yàgg nañ ko jàmbat waaye tàmbali nañ fa jóori xeer te nee nañu li ñu gis de doyu leen ñoom goudron la laaj na ñuul kok na soxla bi ñëw si te tali bi ba léegi gisuñ ci benn réalisation boo xam ne dox na ñu bëgg su fekkee ne nii lañ ko paree pour continuer ko ñu arrêté ko. ñoom nag ñaaru neen ñàkk courant bi dëkk dëkkaan yooyu dund. fii ci arrondissement Mabo courant bi bu dee cinquante dëkk la benn dëkk moo fi am courant bu dee cent trente dëkk yi cinq dëkk rek ñoo fi am courant kon xam ngeen ne loolu rafetul. fu ne la waaye jóge woon ñi takki seret ñuy wari woto takk nag ay sekket yu xonq ngir wane seeni bëgg-bëgg waaye tamit bokk na ci li leen gën a yitteel ñu goudron yoon wi jóge mbir kilaan jëm Segré ba ñoqali ba commune bu Mabo ségressé ko Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye yeneen i askan ñi doon ñaxtu tamit ngir wane seen naqar mooy askanu euh, commune bu Ndiaganiao rawte ñu nekk ci dëkk yi di Mbuluk teen ak euh, Kuluk ñoom nag euh, li ñu bëgg mooy ndox ku ndox mu sell waaye tamit courant ak ay bërëbu fajukaay bëgg nañ tamit ñu defaral leen tali bi dox diggante Sandiara Ndiaganiao ñaaw ba Xombol Abdourahmane Diallo. ambulance bu baaxul bërëbu fajukaay bi nga xam ni dara neewu fa ab forage bi nga xam taxaw nag lu ëpp fukki at ba léegi kenn yeggaliw ko ñu dëkkee mbuluxuteen kuluk daal di wàcc ci tali yi ngir fippu mbay Ndiaye moo yor kaddu waa kuluk waa kuluk sonn nañu waa kuluk damm nañ dee nañ tàyyi nañu kuluk amul ndox amul courant amul yoon bu baax amul bërëb bu fajukaay bu baax amuñu école yu baax école yaa ngi ñuy jàkkaar lool miiré wuñ ko amul douche classe yi doyul kuluk nelawuñu guddi nelawuñ bëccëg guddi amuñu courant loo yeew ñu yeewi ko boo bëggee dem sonn ñuy interpeller suñ suñ autorité administrative yi di leen xamal ne kulu dañ koo fàtte ci lépp. ñi dëkkee zone bas-fond bu commune bu Ndiaganiao ñoom it daal di wone seeni naqar ci ñàkkum courant bi nga xam ne am nañ ko ñu ñaawlu tamit anamu tali yi nga xam ne mu ngi seen bërëb boobu Lamine Diouf moo yor kaddu collectif bi. ma rappelé ni commune Ndiaganiao bi 38 villages ñoo ko constitué ci 38 villages yooyu juróom-benn kese ñoo am courant te ci juróom-benn yooyu amul benn dëkk ci zone bas bi nga xam ne bokk nañ ci am courant ko nangu te beneen bi ci topp mooy problème mu tëli bi yéen journalistes yi gis neen tëli bi bi ngeen di ñëw bi ngeen jógee Mbour ba Njagañaaw xamoo leen li leen daw bu ngeen jógee Njagañaaw ba fii ci zone Bafon ci Gueulaw Séeréer xamoo loo leen daw ñu dëkkee Mbulukuteen Kuluk ak ñu dëkkee zone Bafon kenn ku nekk ci ñoom amal manifestem waaye ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy projet PUDC yi ñu am ci ndax nag ñu mën a am dund gu jag RFM Mbour Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diallo yeneen i askan ak yeneen i ñaxtu di askanu eh, dëkk bii di njot nekk ca diwaanu Fouta ñoom nag li ñu bëgg mooy seen dëkk boobu ñu def ko commune ndaxte dina tax eh, seeni i jafe-jafe saafara wu lu mel ni wàllum ndox waaye tamit wàllum tali Ali Bandel Niang mu di ab gox bi faree ci bët saalumu région bu Matam ci limite yu Tambacounda ak Kaffrine gox boobe nag jafe-jafe yu metti la fa askan wi di dundee jafe-jafe ci wàllum jot ci ndox bu sell amul sax ab bërëbu fajukaay maanaam poste de santé waxaale wuñu sax bërëbu jàngukaay lu mel ni ay collège pàcc bi faree ci Ferlo commune bu Awré Follaal mu ngi metti ci waxtu bi nga xam ne nag ñu ngi yëngal di wax waxu ay découpage administratif ci yenn gox yi nañu seen dàll di sàkku ci nguur gi maanaam président de la république mu dal di sosab commune bu bees bi nga xam ni capitale bi mooy doon njot la ko waral ak Amidou Sow bokk ci mouvement développement région bu Matam. ëpp juróom fukki dëkk ñaar fukki dëkk ak juróom-ñaar yoo xam ne ay dëkk yu mag ak ñeenti dëkk yoo xam ne ay dëkk yu ndaw la dañuy mel ni bokkuñu ci commune u tey nag ñu bëggoon am seen àq ak yelleef ñu bëggoon ñoom a leen am waxoon ne fii nii di Fuuta bëgg na ko titre foncier te gis nañ bañ buggee def lu ñuy wax forêt classée fàtte wu ñoon ferle boobu noonu tey nag aussi dañoo bëgg ci commune yi ñuy wax ñuy boole ci commune yooyu ñoo xam ne te dañoo bokkoon ci commune Xawre bëgg moom tey am seen commune nga xam ne ñu ngi dépendre ci njot soo xoolee ñu fi toog ñëpp xam nañ ñu jógee fait près de deux cent kilomètres pour la jógee pour mën a jàkkaarloo ak président ci fàttali nag gox boobee nga xam ni am tukki te ay kàddu yi mu jafe-jafe yi askan wi dund dundee indi woon pëcc xoo bu rëy lool fii ci doonu Matam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang bu ñu jógee Matam dañuy dem ci beneen dëkk di Daaru Xuddo sa nekk ci commune bu Kerewan ca diwaanu Kolda foofu nag ak lakk moo fa am nag bërki bi yàq fa lu bëree bari ay néegu ñax ak yeneen tax nag ba jamono ji ndimbalante diggante askan wa ñi yàqalewul nag eh, di fat ñi nga xam te ne ñoo loru ci lakk googu bokk ak ñoom lépp dañ ciy waxtaan Boubacar Diallo ci jokkoom ak Angelina Gomis. fu ñu mujjee daal mujje bu met depuis démb boo fu mu nekk nii sinistré yi kër yoo xam ne lakkuñu kër yooyu lañ leen dugal au moins pour ñu mun a fanaan parce que fu ñu nekk nii amuñu fu ñuy fanaan amuñu matelas amuñu néeg amuñu dara amuñu yére yi ñu sol collecte de dons yu population yi dëkk bu nekk mu ngi dajale ay yére di andi foofu au moins pour ñu may leen au moins yére yi ñuy am pour ñu mun a sol effectué naa huit tonnes de riz et quinze tonnes ciment ak mille francs pour achat aliment bétail parce que xam ngeen ne même fonds aliment bétail yëpp dafa lakk dund bi lakk seen jiw yu ñu yaakaaroon pour mbay mi lakk seen néegi yi lakk dara génnagul parce que instant lakk bi bu mu amee vers treize heures mu ngi tàng jir ngalaw mu ngi am vraiment dara génnul ci biir dëkk waa nguur gi yónni na foofu autorité depuis autorité administrative yi yéeg ko autorité sous préfet bi nekk na foofu gendarmerie ak waa sapeur pompier yëpp ñëwoon nañu foofu def nañu seen enquête yóbbu nañ ko fu ñu ko war a yóbbu léegi ñu ngi xaar ndimbal nguur gi. ak RFM kumpa jeex na. wax euh, léegi li soxal wàllum politique ak élection locale yi nga xamante ne euh, jàpp nañ ko ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum deux mille vingt deux euh, di déwén di loo xamante ne nag li ci des mooy ñaata lañu ñu war a joxe ci caution ba léegi nag kenn xamagu ko muy nag lu jur coow diggante ñi yëngu ci géewu politique bi ñi nga xamante ne nag ñoo noon aligné yi ñoom gis ne nekk na na nekk loo xamante ne ñëpp daañu ci mën a jàppandi pour ñëpp société civile bëgg nag leen fexe daal ba du jug candidature ku jug rek daal di samp sa ndënd nañ fexe ba caution boobu yi nekk loo xam ne dina euh, tax ñu bañ am lu ni mel Pape Ba coow commencé jip ci caution bi nga xam ne ni ñi bëgg a dem ci élection gox-goxaat yi moom lañ war a fay alors que montant bi fixé guñ ko ndax mbir mi dañ ko war a discuter ci conclusion wu évaluation processus électoral bi position bi nga xam ne parti non aligné yi moom lañ am seen coordonnateur Déthié Faye nee na nañ ko teg ci montant boo xam ne nii du cher lool waaye itam du yomb ba ëpp. am na montant yoo xam ne bu fekkee ne def nañ ko. loolu dafay tax be ay nit ñoo xam ne askan wi bëgg nañu bokk jàpp nañ ne war nañ leen a mën a dénk seen seeni gox nit ñoo ñu mën nañoo dem ba ñu mën a bokk moo tax il faut que mu doon loo xam ne dafay dëggu doomu ñu bokk mën a contrôler itam ba liste yi bañ a jéggi dayo noonu. xaalis bu raisonnable Jibril Ñing bu société civile d' accord na ci waaye nee na nañu moytu nag mu yombal ko lool mu jur candidature yu bare bare bare ba kenn du ko mën a organiser. suñu réew yi dañoo gis ne at yi nga xam ne moo weesu dafa am plus de trois cent partis. 2019 avant ñuy reporter élection locale yi ministre de l' intérieur bi fi nekkoon Aly Ngouille Ndiaye da ko fixé woon ci dix millions lan nga xalaat ci montant boobu. waaw yaakaar naa ne montant boobu amoon mon avis c'est un montant raisonnable. dix millions boo xam ne. dana euh, permettre bu ko jóg rek. daal di li. te dina permettre aussi. ñu sauvegarder ñaari principe yoo xam ne. bu amulee démocratie am. mooy le principe de la liberté de candidature. et le principe du suffrage universel. caution bi nga xam ne nii nag ni ngi ko war a fixé buñ ne élection yi des na téeméeri fan ak juróom fukk. ba léegi nar na xajalewaat encore classe politique bi. yegg si ci xibaaru tàggat yaram mi sport weekend ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi dal nag jàmm ci sport weekend dañu koy daal di door rek euh, wàllu football ak quart de finale coupe CAF niki dimanche gi ci bu une heure jotee di treize di heure Ndakaaru ca Cameroun jaraaf dana fa tase ak ñii di Sport bu Garoua laata nag match bi di door euh, lii di conférence de presse d'avant match bi kii di Cheikh Gueye am na ay kaddu yi nga xam te jot na ko yëkkati ñu teglu ko ci yaatal moom mooy tàggat équipe bii di jaraaf bu Dakar. le Coton mooñ ci ëpp expérience waaye teewul nag ñu bàyyeeku ndax ñun itam am nañu suñu argument sur le plan défensif ak sur le plan offensif ba tax na am nañu yaakaar ne bu ñu ko doxalee ci anam yi ñu ko bëggee mën nañ fi jëlee résultat bu baax. vraiment profiter de l'espace que va laisser l'adversaire. Souleymane Aboubacar moom moo di tàggat coton sport bu Garoua moom mbébétam moo di fexe ba am ndam ngir mën a waajal match retour bi ci anam yi nga xam te ne noonu la ko bëggee. nous n'avons pas assez d'informations sur cette grande équipe parce que j'appelle grande équipe parce que. ce n'est pas donné ñu nag amul benn information ci équipe bi nga xam te ne moo di jaraaf waaye mën nañoo jàpp ne équipe bu mag club ndax boo xoolee poulom ba mu nekk moom moo fa jël pay day wane ne kon boog am na li nga xamante ni mën na ko ñun nag euh, yàgg na nag jotu ñoo yegg ci nga xamante ni moo di ci wàllu quart de finale waaye euh, li nga xamante ni daal euh, moo ñu soxal moo fexe ba am ndam suñu ñu xam ci yan anam la somme à domicile contre le jaraaf. ni bu 13h jotee bu Afrique du Sud dana tase ak ñii di waa Raja Athletic Club bu Casablanca CSF bu Tunisie dana tase ak Jeunesse Sportive bu Kabylie bu Algérie Pyramids équipe bu Égypte la moom itam dimanche dana tase ak bu Nigéria quart de finale aller Ligue africaine des clubs champions jàppale ne jongante ñu doon amal Belouizdad moom daal dina daan ñi di waa de Tunis moom la Kaizer de équipe Afrique Sud mujj daan Simba Sport bu Tanzanie MC ak Wydad Athletic Club bu Casablanca un but partout la ñu def comité bu confédération africaine bu football ñoom nag ña nga woon Kigali euh, euh, euh, Youssouf Bodian lu weesu toxal ci weeru septembre ñaari bëccëg yu njëkk qualification coupe du monde Qatar 2022 ngir fexe ñaari fukki réew ak ñaari daal di defaraat seeni stade CAF dina leen gunge ab projet de financement infrastructure yi ëpp juróomi téeméer million si sunu xaalis présenté nañ ko comité exécutif bi nee na dina ci liggéey ngir xool na la koy valider yi na gunge tamit officiel match yi ak taxawal programme boo xamante ni li ko tax a jóg mooy daal di tàggat corps d'élite ay arbitre lëkkaloo ci ak FIFA ab budget bu ëpp juróomi téeméer million par at moom lañ ci dugal li ko tax a jóg mooy tànn ay arbitre ñu daal di signer ay contrat su ko defee ñu topp leen tàggat leen ci ndimbalu ay instructeur technique ak physique yu CAF ak FIFA comité exécutif CAF nangu na tamit ñu sànc ab championnat panafricain interscolaire de football ki koy financé di fondation président bu CAF di Motsepe dina def ab don bu ëpp juróomi milliards ci franc fa jàppale ni final Ligue des champions africaine bu ren ca Maroc lay amee finalu coupe CAF ca Benin Égypte dina dalal édition bu njëkk bu Ligue des champions ci jigéen ñi waaye tamit CAN U20 ci atum 2023 ci at moom le la ñuy amal CAN U17 ca Algérie CAN bu Beach Soccer 2022 jërëjëf ñu daal di door championnat bi ci réew mi di Ligue 2 bi Guédiawaye football club jamono gi moom moo féeteegum ci bopp raw gàddu gi la ko waral moo di samedi gi mujj naa am ndam ci déplacement bu mu doon amal ca Mbour diggante ak Africa Promo Foot un but partout Guédiawaye football club jamono gi ma rawee Linguère de louis benn poñ mi nga xamante ni moom itam dimanche bi dana jot football waaye jàppale ni tamit samedi gi démb jëf FC bu Mbour ñoom euh, dañoo daal di match nul but euh, partout mën nañu jàpp nag dimanche gi danañ daal di yeggali jogante yi ca Thiès diggante amitié lay daal doon ak ñii di waa bu saint ñoom ñi nga xam bu ñu amee ndam danañ foqatiwaat place bu njëkk bi ci nga xam ñoo di waa football club ca Saly diggante Kër Madior lay daal doon ak Renaissance ca Guédiawaye stade Ibrahima Boy diggante Duc ak Sonacos bu Bawol woon Ligue 1 bi ñu ngi seen 16 journée waaye jàppale ne jongante yëpp incha allah niki dimanche gi lañ koy amal coup d'envoi 16h30 foofu la Mbour Petite Côte 12e classement di recevoir AS Douane 5 ci classement bi stade Alassane Djigo yi tamit dana am jongante diggante AS Pikine féetee jamono gi ci bopp raw gi ak stade Mbour ca Ziguinchor Casa dana tasek avant ndàcc gi moo di Gorée ca Deni dana tasek ñi di waa Dakar Sacré-Cœur Sey féetee si ñaareelu place bi ca Thiès nag SNEPS 9e dana tasek ñi di waa Ndiambour bu Louga di 11e ñu daal di waxtaanee FA Cup ni ki gi lañ ko doon amal foofule ca Angleterre ca Wembley ci teewaay 20 yi nga xam ni ñoo di waa Leicester ñoom ñoo mujj am ndam seen digg ak ñi di waa Chelsea 1 à 0 seen but nag ka dugal moo di doomu Belgique bi di Tielemans uh, kii di Edouard Mendy moom muy góolu équipe bi di Chelsea moom jotuta uh, football Angleterre itam jot nañoo football li nga xam te ne moo di seen euh, championnat euh, laata nag muy jeex fi toll nii ñaari journée moo daal di des Manchester City moom jël na mbiri leer na ba pare waaye Fulham mi nga xam te ne moom euh, daal dina wàcc deuxième division ba pare moom dafa daal di ñàkk ci digganteem ak Southampton 3 buts dimanche gi nag la ñoo fas yéene kon bokk yeggali jogante yi Liverpool bokk ci ki nga xam te ni dañuy xëccu ngir daal di bokk dëwën ci wàllu Ligue Wolverhampton Everton dana tase ak Sheffield United waaye 11h Crystal Palace bu Cheikhou dana tase ak Aston Villa. ca Italie foofu euh, leer na Inter de jël na li nga xam ne moo di championnat bi waaye amoon na jongante gu am solo ci digganteem ak Juventus de Turin ndax ñaari équipe yooyu bëri na li ñu wujje ba tax na ku ci am ndam itam dana dugg ci li nga xam ne moo di histoire waaye Juventus de Turin moo ci mujj am ndam ndax daal dina daan Inter de Milan ñetti bal euh, ci di Cristiano Ronaldo jot euh, nga xam te ñuy di waa Juventus de Turin moo di dañoo gën a dëgëral seen taxawaay si ñeenteelu place bi te buñ ne moo Atalanta moom mu nga féetee si ñaareel place bi daal dina am ndam samedi gi ci diggante ba ñuy di Milan AC féetee si ñetteel place bi dimanche gi ci bu 18 dana fekki Cagliari ci dëkkam Napoli bu Kalidou Koulibaly féetee si juróomeel place moom itam di xëccu ngir mën a bokk ci compétition européenne yi déwén moom dimanche gi ci bu 18 dana taseek ak ñii euh, Fiorentina ca Allemagne moom leer na ba pare euh, ñii di jël nañu championnat Euh, jàppaleen nag euh, kii di Lewandowski moom ci googu lay jongante woon na ci boppam gannaaw bu mu toogee ab diir bi nga xamante ni jotul la football ndax gaañu gaañu bu ko tëral moom nag jot naa dugg ci taarixu lii di euh, équipe bu Bayern de Munich ndax jot naa dugg ci googu jongante quarantième butam daal di égalé record kii di Gerd Müller Leipzig moom leer na ba pare déwén dana daal football li nga xamante ni moo di Ligue des champions ñoom nag ni ki dimanche gi 18 h di ne Wolfsburg mi nga xamante moom itam bëgg naa bokk ci wàllu diggante ñaari équipe yooyu lay Dortmund ma nga féetee si ñeenteel place bi moom dimanche kii ci bu 16h jotee dana tase ak ñi di waa Mayence kon boog mbokk yi sport weekend fii lañ koy daal yemale di leen jaajëfal di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media ñu koy jaajëfal moom tamit Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi foofu leen may yéen ci xibaar yi ne sit ñu def pàttali cëli ci gën a fës accident yu bëri ci senegal ci tali bi transporteurs yi joxan si ñuy def transport bu jaarul yoon di war gaynde yi mu fekk jamono jooju ministère bi dénk wàll dem dëkk dikk bi fas yéene ah, jëli matuwaay ngir dakkal moto jakarta yi yebi nit fii ci Ndakaaru ay ñaxtu ci dëkk yu bëri ci réew mi Mabo ca diwaanu ah, Kaffrine ba ah, Mbulukuteen ak Kuluk ca diwaanu Mbuur askan wi di laaj courant tali naka noonu tam ndox mu sell wàllum tàggat yaram jaraaf di joué tey quart de finale aller coupe de la CAF waa jaraaf di daje Coton Sport bu Cameroun foofa ca euh, Cameroun bu une heure jotee fii ci Sénégal euh, Ligue 1 bi championnat bi fukk ak benn juróom bi ñu koy amal ji ñi jiitu di AS Pikine di daje ak waa Stade de Mbour. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Dieng newoon ci micro bi ànd ak Amady machine bi. ñu leen di jaajëfal